mandi ñi xam dafi xam nañ ko drogué xam safi dëgg xam nañ ko dama koy jéem a jiñ moom mi ngi lay jiñ lesbienne am na yoo xamante ne tamit xam nga rafetul mën naa ñàkk et puis les hommes d'accord góor dëgg lay àndal maa la wax lii góor dëgg da ngay nekk góor ma ànd ak yow su nekkuloo góor ma ànd ak yow donc maintenant les histoires de lesbiennes pour une volonté de nuire j'aime les hommes j'adore les hommes moi ñaa ma koy doog a laaj. waaw mu tontu xam naa du ñàkk dañ la ko ragal. Ah, mos nañu ma ko laaj nag Achille Diouf ah, mos na ko laaj ah, kii en 2010 ou 2010. nii nan nan la ko laajee moom. waaw la ko waxee woon nag il paraît que tu es lesbienne ma ne ah bon. mais loolu kenn du ko wax. boobu j'étais mariée avec un vrai mec ah. parce que Nero c'est un vrai mec ah. waaw mais Aïssatou tamit lan la doon waxee noonu tamit façon boobu. écoute tooñ rek di baalu na ak barki Demba Ndiaye. mais euh, mais si c'était à refaire am na yenn questions yoo xam ne dootu ko posé. non man nag xam nga am naa xaw naa am différence nag quand même ak Aïssatou. ces histoires de lesbienne ou pas là man góor dëgg lay àndal Mm-hmm. soo nekkulee góor sax du ma ànd ak yow. Euh, yaay Fall bi muy ñëw ci xamoon ni li nga. dëgg laa en général xam nga Sénégal ko génne si bopp nit. am tendance góor am am di liggéey am jom. Mm-hmm. am benn am benn caractère. c'est am nu muy taxawee elle revendique sa lesbiennité c'est une lesbienne. kenn. c'est yaay Fall la lesbienne. elle est lesbienne. mais ne la yi ngay wax yaay Fall ba nga koy recruter elle revendique ça. elle le revendique. Ah elle revendique partout tout le monde a sa famille yëpp xam nañ ko. day la góor di laal jigéen loolu et eh, tout maintenant ñëpp meluñu ñu moom man góor dëgg moo man dëgg moo may laal. moi ah, j'adore les hommes quoi j'adore les hommes d'accord quand je suis en couple. oui hmm. vrai mec. Hmm. si tu n'es pas un vrai mec tu vas partir j'adore les hommes mais y a mais pas euh, d'accord. mais pas euh, lan la laayoo ci jigéen jigéen nag dama lay coacher. moo tax may ut may ut papi heureusement da lu neex walaay walaay. <laughs> papi heureusement ma jàkkaarloog man nag. papi heureusement yaa ko demee. walaay walaay bëgg nga loo war a bëgg. moi marié moi déglu ma rek déglu ma rek. moi hmm? marié je fais l'amour tous les jours. Eh. tous les ah. jours marié comme je peux rester un an sans le faire hein lesbienne. Ouais, eh. écoute quand même. Quand tu es rassasiée. mais tous les jours hein c'est tous les jours. si ah. je suis en couple ben oui. góor dëgg góor lan laay doy jigéen góor dëgg koy engagé dama leen wax génn leen affaire lesbienne seen nopp man je tous les jours kooku mënu lee sax buy egsi. ah. ba oui. ku ko mën ñëwal ku ko mënul toog. caaxaane wu ma ko sax. mais chaque jour ba doo sonn. caaxaane wu ma ko un couple quand on est couple on fait l'amour tous les jours. ay tiyaaba de foofu la ëppee moom. mais écoute voilà et on fait des enfants de de beaux enfants moi j'ai de beaux enfants. ah bi tam man amatuma question. Hmm. da ngeen di seen nit rek bu ko yàq bu ko yàq nee na góor dëgg moo fi ku fi nekk góor dëgg moom bu I love you so tous les jours. tous les jours. oh my God. foofu fii amul place bu jigéen. oh my goodness oh lu la dégg nga eh, la may metti moi on s'occupe de moi tous les jours. avec a homme un vrai mec quoi donc lan lay doyee si jigéen la jigéen dama xamul sax nañu la si jigéen donc soo ma ko xasee di wax nii bëgg bëgg a yàq xel nit yi ma leen eh, man seet leen sama jëkkër yi ay vrai mec vrai mec Moustapha Ndiol sa kaw rafet bu baax jikko yu saw rek moo tax ma baax ko mais c'est un vrai mec maa wi ñoom ñëpp ay góor dëgg lañu. waaw. man bu gudd. booy gën a des D'autres D'autres. Tu as ah. d'autres maîtres. J'en ai connu beaucoup. J'en ai connu des gens connus, des gens qu'on ne connaît pas. Mm -hmm. Je je connais des gens magnifiques hein. J'ai euh, Tafsir je connais Tafsir Diatara donc euh, c'est je connais Tafsir Diatara. Euh, il fait partie de mes vrais mecs. Oh oui, da ngeen di wax rek confrontation. mi ngi bëgg actuellement je te Tafsir c'est une c'est une on se connaît depuis 94. ah ok mais Tafsir non célibataire. Ah, célibataire waaw kon laala fase moom tam noonu lay fase mais on est inséparables. waaw kon doo jël Tafsir yow seen situation baax da ngeen bëgg lu neex rek. di da ngeen bëgg lu neex rek. waaw di doog a non waaw jëlal Tafsir laa wax match bi jeex. Tafsir j'aimerais bien le prendre. mais looy xaar. on va voir. il est trop occupé mais vu que c'est vraiment comme vous l'avez si bien dit. de madame Diatara. madame Diatara. voilà j'ai tafsir nag yow. Euh, j'aime bien tafsir. oui oui. Eh, ma ñëwal nag ñaan